mu nuyoo ñëpp ziar leen balu leen ak dama wax ne euh, tey jii fii ñi fi toog yëpp syndicat wu ñi nekk ci wàllu géej gi yëpp ñi ngi fi te bu ñu nee ci wàllu géej gi yépp loolu nag day wane lëkkaloo bi ñu lëkkaloo syndicat yépp euh, napp gi am na ci transport maritime am na ci offshore pétrole et gaz am na ci mais comme ma napp bi lañ ma séddewoon mu wax ci ne napp gi Sénégal Sénégal set euh, juróom-ñaari téeméer kilomètre ak fukk ak ñaar la am ci tefes gi mu am ñu xaaj ko ñetti cër bii la ñuy wax la pêche côtière mooy napp bi ngay napp ci booru tefes gi la pêche au kooku c'est au-delà des 12000 c'est-à-dire 12000 wala fukki 12000 nautiques ñun 1000 nautiques la ñuy wax xamuñu ay kilomètres foofu mooy pêche au large après nga dem ci grand fonds yi mooy fonds yu mag yi bi ñu waxee loolu ñu ne Sénégal pêche bi moom mooy deuxième pilier wu économie nationale économie nationale ça veut dire que kon gouvernement bi li ko napp bi indil moo ci nekk moo nekk en deuxième position muy générer c'est-à-dire six cent mille juróom benn téeméeri junni ay nit ñoo ciy liggéey direct ak indirect ñiy liggéey ci biir napp yi soixante mille pêcheurs ñoo koy def juróom benn euh, juróom benn fukki junni ñoo ciy napp yooyu pêche artisanale ak pêche industrielle laa boole mais li ñu concerné muy pêche industrielle ñaar téeméer ak juróom fukki bateau ñoo fi liggéey ci biir loolu am na juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett yoo xam ne ay union européenne la ñu bokk union européenne mooy gaal yoo xam ni suñu mbokk tubaab yee ko moom muy français italien espagnol ñoom ñoom moom gaal yooyu indi leen fii ñuy liggéey entre Sénégal ba ci golfe de Guinée actuellement jën wi dafa wàcc golfe de Guinée moo tax ñi ñoom ñëpp ñu ngi golfe de Guinée foofu dina ko débarquement yi mat na cinq cent mille juróomi téeméeri junniy débarquement ci ay tonnes dañuy débarqué fii mais loolu yëpp dañuy wax ne nappkat bi ciy sonn gisu ci boppam nappkat bi amul heure amul heure maanaam boo ko xaymaa li muy toog ci journée bi yëpp du mat sax 4 heures de temps 20 heures da koy liggéey traitement ba baaxul seen néeg yi baaxul affaire esclavage dëgg mën nañ ko tuddee loolu moo fa nekk parce que ka ca kaw di tubaab bi walla commandant bi li ko neex moo fay am boo mënulee mu débarquer la léegi te dara du ci dikk traitement yooyu moom la nappkat yi di jànkonteel moo tax bëggatuñu sax dem géej ñu tegal leen ci nag waaw même bu loolu doon am sax te ñu lay fay lu ko jar convention bii ñuy fayee 1976 la woon 1976 ak léegi ñaata at la dara changé wu ci salaire de base bi ñu ne. 74 mille francs la xoolal liggéeyu géej ni mu méttee ñu lay fay 74 000 francs am na lu ma fàtte wax en français sax mooy seen nourriture bu ñu ko changé wulee ci convention bi 467 francs la 467 francs mën naa dundal kenn loolu mu ne ci convention bi de moo tax ñu demande boobu ba léegi pour ñu changé ko 467 francs par jour loolu mooy lekku marin xam nga dañ ñëw tey pour wax leen li maree di daj nit ñi xam ko donc 74 millions yooyu lañ leen di fay ak heure boo boo nee boo sëqatee ñu dàq la moo tax mara yi bëggatuñoo dem géej récemment li camarade Cheikh wax marins ñoo décidé jël seen sort en main taxawal seen bopp yuuxul seen bopp. yàlla ci offshore dégg nañ beneen bu tudd laas. donc ñi ngi ñëw comme des petits pains yooyu nag yéen journalistes seen rôle mooy ngeen jege si le syndicat des gendarmes et la plateforme syndicale ñu expliquer leen li xew ngeen génne ko parce que réew mi nëbbatu jeex na fi di laqatoog di def ay affaire à côté jeex na fi su ko defee nit ñi xam ne xew gis nga marin les conventions intéressantes noonu la li ngay fay marin bi na dugg ci poosam à côté de ces sociétés nag ay la yéwén y a des sociétés honnêtes yu fi nekk di liggéey état leen di jox ay marché ñuy attirer attention contenu local loolu ci ron la ak anaam ñu àndandoo boole ñoo ñëpp ñu toog ak syndicat yi ñu waxtaan pour que ñu trouver des solutions coow yi du fi am bu ñu kon nee nii nag ñu toog ba juin parce que ñu ngi dégg parti politique yi di yëngal dëkk bi dañuy marche dañuy marche moo ñu tee génn parce que bug ñi raas dem ak ñi gàmm si bokkuñu ñun nag bugg ñu raaxaloo ci yenn yi on est bëgg suñu réew ñu jàngal ñu ñu nekk ci navigation ànd ak mais bu ñu toogee ba weeru juin bi dee le 6 juin la Expresso bi di excité dégguñu benn réaction état danañu jóg ñun wan leen marin Sénégal yi ni ñu toll ak yan compétence la ñu am ak lan la ñu mën. maanaam toute la chaîne d'activité de l'industrie pétrolière et gazière ci Sénégal ni ñu ko amee maanaam mooy prospection ba ba ñuy daan dañuy wër di xool zone yi nga xamante ne dafa am hydrocarbure ak bi ñu ko gisee nan lañ koy limiter ak nan lañ koy génnee. wala boog balaa génne bi nan la ñuy raccorder li ñu ko war a génnee jumtuwaay yëpp mu nekk ay prospection exploitation développement ak production ba ci euh, transformation ak commercialisation bi donc loolu noonu yëpp contenu locale moo ko définir mu ne ci chaîne yooyu yëpp sénégalais yi dañ cee war a liggéey non seulement sénégalais yi dañ ci war a liggéey mais également nos entreprises locale bu voyez dañu war a liggéey dans tout la chaîne la valoriser ko man personnellement monsieur Lo damay wax ni le contenu locale est incomplet bi ñu ko liiree parcourir ko parce que mu ñuy wax contenu locale ñu koy ñi fay liggéey nekk ay gens de mer di dem géej te mënuñu wax quota bi nga xamante ne nii moom la marin sénégalais am ci biir loi bi ne ci la ñuy demee géej ci benn webinaire mooy conférence en ligne bu conseil national du suivi du contenu local defoon dañu ne boobu y avait le commandant Gorgui Sy moo leen posé question bi quel sera le pour les marins ñoom ñu ne bon c'est pas c'est 51 pour cent pour les ma euh, navires battant pavillon sénégalais maanaam navire yi nga xam ne drapeau bi ci ne drapeau Sénégal la loolu leneen beneen mbir la bu temps bi duñ ko may pour ñu leeral ko mais bépp navire bu battre pavillon cinquante 51 pour cent ci équipage bu ci ne bato bu ne loolu lay jël ci sénégalais mu nekk lu tuuti mu nekk lu ndaw on est dans les eaux sous juridiction sénégalaise sunuy ndox lañu ñu nekk sunu dëkk ñoo am souveraineté sur toute l'étendue de notre mer territoriale beneen bi également mooy les ressources naturelles nous appartiennent suñu yëpp la ñoo ko moom ñoom ñoo wax ne elles sont utilisées pour l'amélioration de nos conditions de vie la gestion et l'exploitation de ces ressources doivent se faire dans la transparence et de manière à promouvoir une croissance économique mais également à promouvoir le bien-être des Sénégalais ñoom ñoo ko wax kon ñi nga xam ne ñoo ci njëkk a euh, ñoo ci njëkk a jege war ci liggéey ñooñu gisuñu ci seen bopp ba génn di ñaxtu di souffrir les gens souffrent sérieusement su ngeen xoolee li may waxee waxeewu ma waxin wax rek pour wax mais da damaa bokk ci ay association de marin nekk marin gis li ñuy dund li ñuy subir te ñi fi toog ñëpp xam nañ ko sunu doyen fi toog yëpp dafa metti te loolu dafa war a dakk dañ ci war a gis sunu bopp ci loolu contenu local boobu dañoo bëgg ñu yokk le quota des 50 pour cent dafa tuuti parce que erreur bi mi ngi commencé également mooy la non implication li ma waxoon rek des des des des marins dans les instances de décision parce que tey balaa ñuy wax ay contrat pétrolier gazier di ko signé waroon nañ ci impliquer les officiers supérieurs de la marine maanaam jox laaj leen ci seen xalaat waxuñu waa marine nationale parce que lii commerce la du c'est pas la marine de ñu ngi leen di jaajëfal ndax ñooy suñu sécurité ci côté géej-géej lépp mais nag dañu am ay limite ñoom c'est marine marchande suñu yëf la mais euh, président de la daf ñu war a déglu monsieur Macky Sall daf ñu war a déglu ñun di ñu suñu xalaat pour yenn erreur yeeg manquement yi dootul am te jot na mu recevoir également le syndicat déglu ñu ñu leeralal ko lu baree bari ndax moom moo mën a jël yenn décision yi ndax dañoo yëg ni yenn autorité de tutelle yi amatuñu sañ-sañ jël yenn initiative yi ndax li leen tënk ci kaw donc ñu koy interpréter à travers cette conférence de presse mais également la dernier élément mooy les navires étrangers waxuñu ko ci biir contenu local bi j'en termine avec ça ngeen baal ma peut-être si guddal bi tuuti te il fallait qu'on le clarifie mooy dafa maa ngi koy wax léegi dafa am ay navires yuy battre yeneen pavillon yoo xam ne yeneen pavillon ñoo ci nekk ay Marshall Island ay Malte et cetera Singapour bokk na ci Marshall Island bato yi nga xam ne ñoo ñëw actuellement di ñu dimbali di liggéey ak ñun ci génne hydrocarbure raccordement beeg phase développement bi et tout yu si ëpp c'est des navires battant pavillon Marshall Island te Marshall Island reconnaître suñuy titre ñun sénégalais reconnaître suñu titre mooy lan ñoom ñun bu ñu fa déposé pour liggéey ci gaal yooyu ba suñu bureau de placement yi jël suñu dossier yóbbu dañ naan non yéen mënoo leen fi liggéey ndaxte ñun suñu bato yi reconnaître wul yéen seen i ak seen i gis ngeen loolu duñ leen ko bañal ndax lu am la ci milieu maritim mais autorité yi fi ne mën nañ ko dindi benn sunu réew la ñu ñëw sunuy ressource la kon ñun nañu am fulla bu mat ci ne ñëw nañ ci mooy li ma doon wax léegi bu ñu impliqué woon ci kaw ci négociation yi heure bii dugal nañ ko si kon ñu nekk à ce point là ñu dugal ñu si ñu embarqué ñu reconnaître sunuy titre bu ko defee ñu ñuy embarqué facilement nekk na contrainte bu rëy rëy rëy ñuy demande au président de la république également mu statuer sur ce problème la décider nañ ko pour apporter ko ci suñu secteur d'activité gis nañu Sénégal li fi gën a manqué ci mooy formation des jeunes avec l'avènement du pétrole et du gaz qui est apparu en mer bien sûr comme l'a dit mon secrétaire général li war ci dëgg mooy xam nañ ne marins yi. ñoo fa war a njëkke te dañoo manqué formation offshore parce que dafa nekk benn formation bu particulière syndicat toogul di xaar kenn ñu xam ne ñun ñii ñii suñuy mbokk lañu suñuy doom lañu suñuy jarbaat lañu suñuy rakk lañu te it seen noflaay mooy suñu noflaay moo tax ñu jóg initier loolu nekkat du xaar duñu xaar état du ñu xaar keneen dañuy jóg ñun defal ween programme de formation pour nous les jeunes waxtaan ceeg école de formation maritime waxtaan ceeg anam waxtaan ceeg centre yi nga xamante ni ñoom ñooy def formation bi ñëpp bi ñu waxtaaneek ñoom ñu d'accord ak ñun xam ne idée bu rafet la ñu njëkk nag ne les pêcheurs les marins pêcheurs industriels ñoom ñoo gën a affecté ci lii l'avènement du pétrole kon du leen defal mutation maanaam benn benn jóge ci wàllu pêche ñu defal leen mutation ci wàllu formation ñu mën a rejoindre le monde du de de de l'offshore pétrole et te loolu lu tax ñu jël option bu njëkk boobu ndax dañoo gis ne marin pêcheurs yi industriels kuy am xam-xamu géej am nañ ko liggéeyu géej xam nañ ko coono yi nekk ci géej xam nañ ko kon defe naa ne suñu bëggee am ay marins qualifiés de de qualité njëkkee ci ñooñu defal leen benn mutation defal leen benn mutation maanaam benn formation boo xamante ne leen di jële ci wàllu pêche yóbbu leen ci wàllu offshore loolu luñ ci jublu du dégarnir milieu pêche déedéet waaye dañoo bëgg ay marins de qualité te gis nañ ne ñooñu suñu leen njëkkee ci terrain bi ñeneen ñu ñëw ñooñu dina leen encadrer te day nekk loo xamante ne option bu rafet lay doon te dina permettre aussi marins yi mën a recycler wu ni ñu ko bëggee loolu moo nekkoon li nga xamante nii bëggoon nañ ci appesantir